mbokk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 say mbir ba mu leer nañ ak ak moom ci téléphone bi rek sa aajo fa taxaw na muy ñaar ñu bokk ndey ak baay kii di rakku kii jël kii tuddee ko doom Sa Thiès tey li nga def sa diggante ak waxatu waxatul tu doot ñu si waxati mais li nga def daa rëy ndax ñi nga mën a tuddee doom bari nan waaye nga tegg ñëpp ni Balla sama idole sama mag sama xarit waaw day santoon parce que lii jiitu na suñu judd waaw suma mag la suma deret la xam nga li gën moo gën ci ñun te li gën a rafet aussi moo moo moo moom opportunité suma diggante moom ak famille bi yëpp su ma mag la suma xarit la suma am di jàmm la kenn ku ci nekk doo dugg li sa morom yëgul kon nag yaakaar naa ni gën na rafet tur bi ci dugg gën na rafet leneen ak leneen ne ndax rafet bëri na waaw mais man moom damay sabablu sama côté maay rak aussi damay sabablu sama côté lépp li gën li gën a rafet rek ma njëkk ko ci moom tàmbale ko. Gueye 2 ba tax nga jël doom ak doom ni mu mel ci wéyjur tuddee ko yan qualité. waaw mooy dëggu noo nit baax la nit la boo xamante ni lu mu gis ci ci lu baax rek yéene na la ko xam nga nekk ni koo xamante ni franchement parler idole la référence aussi waaw bu ne idole nag référence rek kon a xam na nit ko dëgg yàlla mënum loo wax ci moom ci lu lii rek am na loo bàyyi waaw dama koy sant na di ko bàyyi yàlla suñu borom rek yàlla ko yàlla suñu borom sàmm li mu sumb yàlla ko daan ba boo jooyee mu jooy boo kontaanee mu kontaan. waaw loolu yàlla la moom laa sax si dama ne am na ñu bokk ndey ak ñoo xam ne mënuñoo def. kenn boonu ci ci ñoom ñaar am na ñu bokk ndey ñoo xamante ni saa yu leen doomu aadama tegee seen bët bëgg ci ñoom waaw loolu yàlla la mais day doon loo xamante ni ñoom ñaar la ko yàlla di sababu seen diggante waaw daf ma xam ma xam ko dañoo bokk lu ñu bokk. bokkuñu dara ñu bàyyante lépp lu am ci àdduna ñoo ko bokk. nday di bàyyi di yàlla di yonent bi di suñuy njaboot di suñuy mbokk di suñuy abdi jàmm mais nag sama yaay laa koy sante di ko gërëmee di ko gërëmee tam sama baab bu baax a baax ndax moom tamit moo li ma wax rek waaw fu mu jaar rek bëgg naa fa awale ci lu baax. waaw même bu dee lu bon la moom bu dama fay njëkk a jiitu ba pare xool bu bon bu fekkee baaxul dina gën dama baaxul kon yaakaar naa kon kooku yéene na la. waaw merci li ma jaaxal mooy da ngeen rusante ba mënoo leen xoolante ci bët nga tuddee ko daw man looloo ma jaaxal rusante bi seen diggante. non rusante bi ñu ngi wax yaa ngi wax li ngay wax. <laughs> ku ne yaa ngi wax sa soxlaay morom xam nga du dëgg la mais xëy na xëy na il faut nit ñi comprendre dafa am ay xaritam mam samay xarit mu am fi muy fréquenté moom fi may fréquenté fii nii liñ fi fréquenté kenn mun ko xam ñaata la barki darakaat déma ci mujj ñooy ànd dem entraînement kon loolu dara mun ko raw ci fréquentation waaw mais xëy na nag dafa am loo xamante ni euh, il faut nga bàyyi ko doomu aadama ki waaw cër di cër dafa war waaw yebeel bu ëpp bu yàggee mën naa leen seen diggante waaw mais cër la rek du dara seen diggante ñaan bi nee naa ko Balla la wala Sadio xam nga man jàmm la rek nee nga nga nu daaw fii nga ñëwoon di lijjanti ma nga ñu ren Balla bëgg na nekk sa xarit wala sa mu ma Balla xarit la mais sa caat la waaw kon jiyaan léegi kon loolu noo ko analyser xarit la kii la faral <laughs> bàyyi maa ma. non yow kankuraa nga def man duuru saa laa def. <laughs> bés bi neex euh, fekk góor gi mu jël âge yàlla ku ne xam na ni euh, góor gi wéradi na tey euh, nga am bés bu rëy ni ceew tey gestu yam ci champion mel ni du Less ak fi at yi tey. waaw bu doon sama sago tey mooy toog fii ba imaam bi di tudd mu nekk ci wetam mais nag yàlla ak doogalam jaam ak ndax man it bu doon sama sago même bu munul ñëwit dana am santé boo xamante ni dana ko permettre lu mën a def mu def ko mais ku ne xam ne ni mag doy feebar. waaw di ko ñaan di leen sàkku tamit nga ñaan leen ma ko rek yàlla yëkkati ko ci jàmm. ndax tamit soxla naa gudd fanam soxla naa soxla naa wér gu yaramam. waaw suma papa la tey bu ñu xamee làmb bëgg ko yàlla jàpp naa ni te am nekk suñu deret jigéen suñu yaay suñu papa la te bu ñu xooloon sama papa ba ci biir ñun làmb waruñ ci woon sa jublu ñun làmb waru woon sa bokk suñu domaine yàlla muñ ci xër rek mais ku doon xam ne ñun jàngalekat alxuraan la ñu war a doon barke alxuraan mais nag li ku nekk moom yàlla xër na la ci dara ndax di nga dugg ci kër ñëpp doon jàngal ko alxuraan kii xëy doon làmb wala mu doon dem nekk jour wala mu nekk leneen yàlla nag moo ñu rëccale ci lii dañ koy sante yàlla bokk waaw man mu danga koy sante yàlla baax a baax ndax am naa ci succès am naa ci nit am naa ci ay ndey am naa ci ay baay am naa ci samay maanaam jàpp naa li ma gën a li ma ñi ma bëgg ñoo ci ëpp ñu ma bañ waaw kon maa ngi leen sant aussi yéen tamit ci dérangement bi ngeen def ndax mu noon bu leen neexoon doo leen fi ñëw kontaan naa ci yéen nag yàlla yàlla sàmm leen yàlla ngeen dem bay rek yéen seen yëfu dëgg yàlla kontaan naa trop di soxna aussi tamit parce que tamit relation spéciale lépp moom la ba dëgg yàlla moo ma jural njaboot gi moo nekk ni koo xamante ni ko ma comprendre la su ma génnoon xaaju guddi doxi sama soxla ba ma neex su ma ñëwee duma laaj foo nekkoon. dama koo laaj mu ne ma non seulement jëkkëram la mais xaritam waaw xarit bi moo jiitu sama diggante ak moom. suma xarit la euh, amuñu na nëbboo dañuy génn ci mbedd bi di dox dañuy bëri ci mbedd bi nit ñi dañ naan yow ba bàyyi jàmbur gi xamuñu sax sama sama jabar la waaw nit ku baax la di gërëm tamit suma xarit yi may ànd ak ñëpp ñoom Badara commissaire Seyni Simel Karfat buur nee na da koo nob rek a nee na da nga koo nob rek waaw noba noba noba fi andi a waaw noba moo koy dama ko bëgg waaw kon encore euh, moom moomu ci jiitu sax aussi ah. ci moom laay root kan buur waaw buur ak yow Fadel yow man man. Badara yi ak ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla. gis nga ngénte lii. dinaa xam ko tey. barki salaatul faate. sama ñàkk jóg ci. ndeysaan. barki Seydina Mouhamed laa lay waatam. Oh. waaw xam deux ans. nga ne da ngay dem lijjanti lii non non naa ni ko baax moom nga man ni nga ne xar boo xamante ni barki alxuraan bu la ci 400000 mooy loolu. Ousseynou ngi nii ñoom ñoo ma ne benn waa ji ñu naan ñoom it ñoom Badara ñii ñoom it ku ne dugg soso daal dem fu ne. ma teraanga bi toog tey bu lii jàppandikoo lépp à grâce que ñoom la ak Omar Boulangerie sant naa leen gërëm naa leen ku lim na da nga juum. àndoo dëgg li wax moom ñoom ñëpp mention spéciale Moussa xam nga sayer ñoom lees moom dama koy bàyyi yàlla dama koy bàyyi yàlla ndax suma papa la tey moo fi tey moo fi tax sama papa mais suma xarit yi ma fi lim ak yi ma fi limul ak sumay nit yoo xamante ni dañoo am yéene ci man ak sumay doom baay yëpp suma bokkal ndey ak baay ñëpp maa ngi leen di sant bu baax baax a baax ku lim na da ngay juum géwél weesoo gudde mais ko ko encaissé doo lekk ceeb de <laughs> Salif jël doom tuddee Balla Gaye 2. Mhm. di magam di xaritam. waay yow en tant que Sa Thiès yëg-yëg mais mbégte la rek xam nga waxuma la Sa Thiès mais ñun ñii sax war ñoo mën a tuddee Balla Gaye 2 doom parce que lum ñu ji loo xamante ni daf ñu koo ji la lu rafet nag ak moom parce que nit la boo xamante ne nii sama sawaay koo xamante ne nii dafa tabax xar dafa tabax kër dugal la ci yëkkati ay million di la jox kooku tey loo ko defar rek te muy sama ngeen bokk direct loo ko defar rek war na nit la boo xamante ne ñun dañ koy ñaanal quoi sincèrement xale bi ñu ko tuddee yàlla na dem ba jikko xale bi dem bay dimbaliwaat doon magu diine quoi Sa Thiès defaram rek la def kenn dooru ko gërëm parce que lu mu war a def la li mu wax sànq turi war turi bettu ko parce que xam nañu lu jaadu la voilà. yow sa diggante ak Sa Thiès. waaw ah, kooku kii ma sama lépp la xam nga man tam may léppam xam nga rek loolu la parce que doo tudd ku ma gën a jege kon xam nga sant yàlla la quoi waaw kon. kon kenn du wérante quoi. yaay moom mooy yow waaw mooy xam nga waaw yàlla nañ suñu borom saxar rek te li ñu yéene yëpp yàlla defal ñu ko. waay jaajëf